ki ñaana na yaaye booy barke fa bopp se ko jalaye e jorroni yalaye korde fa manona waaw waaw e jorroni yalaye korde fa manona e jordoni ala e korde famanona e jordoni ala e korde famanona e jordoni ala e korde famanona e jordoni ala e korde famanona e jordoni ala e korde famanona korde famanona jordoni alaye korde fab manona jordoni alaye korde fab manona e jordoni alaye korde fab manona jordoni alaye korde fab manona manona e jordoni alaye korde fab manona e ala ye kor defa manona ya musa tahada ye sangama rahina ya musa rahada ye sangama rahina ya musa rahada ye يا مزارع داي سنغمار خينا يا مزارع داي سنغمار خينا أدعى نصلا waaw salaamaaleykum mbokki Kër Ndiogou ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax baax di nuyu grand champion bi mu fekk muy sël bu ndaw muy champion di ndaanaan ñu gis ni comme niñ koy waxee saa su ne bokk na ci mbër yi nga xam ne région de Thiès ñoo ci seul lutteur boo xam ne mën nañ région de Thiès ren am na ci lu mat sept drapeau ci ci ci ci saison bi. 18 wala boog 18 drapeau muy champion di ndaanaan ñu gëj koo gis ci làmb parce que mu toog deux ans bëriwul li nga xam ne mooy arène. tey mu jëm ci combat bu am solo digganteem ak ki nga xam ne mooy Laye Diène moom itam di champion di ndaanaan mën nañu toog 300 bëriwut Baye Samba Gueye wala leen mu jëm ci bis am solo le 26 novembre fële nga xam ne mooy hippodrome jaw Makoddu waaye bala ñoo seet rek dañuy bàyyi ki nga xam ne mooy sël bu ndaw mu nuyoo ak i am di jàmmam waaye ñu bàyyi sël bu ndaw mu nuyoo ak i supporteram waaye mu nuyoo waxtaan ak waa dëkk bi waaye waxtaan ak ñoom ci li mu jëm le 25 digganteem ak ki nga ne mooy Laye Diène war a bëree combat bi grand combat dox ci diggante Ziggy Marley ak ki nga xam ne mooy caatu Samba Diaw muy bis bu am solo ñu war a bëre li nga xam ne mooy drapeau Mouhamed Diouf di bis bu am solo mais sël ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu bàyyi ngay nuyoo ak say am di jàmm nuyoo ak say supporters sël nuyu nañ la onze billah bisimilah inna wala yàlla gannaaw bu ma sant yàlla julli jinante bi maa ngi sant waa dëkk bi di sant borom dëkk bi bu baax a baax di sant ñi fi teew ñëpp aw ma seen fay waaw di sant gars yi nga xamante ne dañuy sonn ci man chaque jour nag di sant ñëpp di sant waa kër Ndiogou bu baax a baax a baax góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp awma seen fay di sant waa ci yéen bu baax a baax nag waa Thiène gi ma dëkk di sant ñëpp waaw di sant gars yëpp képp ku taw fii ndax man maa ngi lay sant bu baax di la gërëm sëll tey ñu ñëw sa open presse fekk la sa dëkk dëkk bi yëpp génn diw la waajale bis bi nga xam ne mooy la 26 fële nga xam ne mooy ëpp dërëm jaw ma ko du sa nga xam ne mooy laay jën moom itam di champion du ndaanaam seetaan nga open press am suma su jumul dégg nga kàddu yi nga xam ne moom la yóbbante ginaa boo nuyu waa dëkk ba pare lan ngay wax sa adversaire waaw sama adversaire lu ma ko wax bëriwul ndax ku nekk moom fii si dëkk bii nga dëkk ma dëkk nii ñëpp xam nañ koy sëla bu ndaw Thiès yàgg naa faa dem di ko jëli di andi loolu jaaxalu ma nañ ma xaar incha allah le 26 képp koo xamante ni yaa ngi si dëkk bi doon ndaw na ñëpp ñëw ànd ak man ñu def stade ñoo ko fa am dañ koy jëli ñëw incha allah Youssou Diame ñu ngi koy ñaanal fa mu tëdd yàlla na ko yàlla xare àjjana yi firdawsi barke sëñ Tuuba ndax ku doon sonn si ñun la lii nii nii yàgg na ko mébéb mais yàlla dogal na fekkewu ko waaw maa ngi koy jaale mbokkam yëpp nag di ko jaale ay ñoom fils de ay ñoom fàllaay ñëpp képp daal koo xam ne dégg nga sama kàddu maa ngi lay jaale euh, Youssou Diame di la di ko ñaanal fa mu fi fi mu jógee nii fa mu jëm gënal ko ko barke Sëñ sa adversaire dégg nga ko démb lim la yóbbante nee na ñàkk adversaire moo tax mu jël la mais yow ak moom du combat waaw loolu waxi waxi neexal supporter la waaye ku ne xam ne sëlu bu ndaw moom làmba mu musta yàqu te mu musta am ay difficulté yaa ma gën a xam ñun dañuy dem bëre fula ak fayda daan ñibbisi incha allah parce que ñun loolu lañ xam ñun loolu lañ xam te ñuy topp su ñun suba ak ngoon tamit loolu lañ loolu lañ xam su ñun kon nag yàlla dogal na ñun duñu duñu leen musa neenal ak lu mu metti metti dañ koy jëli ñëw incha allahu rabbi. sa digganteeg laay jéen mën nañ cee xeex yéen ñaar. waaw làmb jooju noonu mënul yomb parce que làmb bi àdduna la ñëpp ko yàkkamti làmb ji mënul ñàkk xeex laay bu bëggee dañuy xeex bu bañee dañuy xeex te dama koy duma daan ko incha allahu rabbi. sël ñeme ngaa samp jaaga xeex ak laay jéen. loolu ragaluñ ko ñun ku ñu xam-xam ne ci xeex la ñu xamee laay bu ñu gis ñuy dem ci àll bi di compétir suba ngoon mu yaakaar ne ay mbëru mbapat lañ déedéet ñun ay mbëru dëkk lañ ñun àddunaa ñu yaakaar dañuy bëre xeex dañuy bëre xeex waaw dañoo war a xeex bëre waaw di sant gaa yëpp nag di sant gaa yëpp bàyyiwuma kenn waaw nee na ba nga dalee jël adversaire ba léegi musoo jël adversaire musoo jël ko mel ni moom ci bëre ci xeex ci fonk bis nee na busoo am adversaire bu mel ni moom cib làmb moom tamit na jàpp ne musul am adversaire bu mel ni man mu ngi doogay am ku mel ni man mu ngi koy doogay am waaw am ku mel ni man parce que man lamb dama koo dund man dama koo dund man benn année li may jël laay jën kan moo ko xam laay su ma ko jëlee waa Cees ko xam ruq boobu noonu mën na faal jeex na laay jën amul ko xam fooy taxaw ne laay jën dañ naa la kuy koo te man foo taxaw ni sël bu ndaw jëru ngay taxaw di laajte bindal sa téléphone sël bu ndaw damay ñëw damay gis damay jël waxaar ak sa diggante ki nga xam ne mooy laa jën mu ni booba day jàng bëre nee na booba lam ci daan sax neexu ko parce que booba day jàng bëre kooku bu daanee jaasi bol da koo for jamono juñ nii jaasi bol li muy def ci làmb laay jën defu ko fi jaasi bol àgg ci làmb laay laay jën àggu fa li Diass Peulh di daj ci làmb Laye Diène daju ko Laye Diène dama ne la dama kaa jël pour la forme mais kenn xamu ko maa la wax loolu. suñu métier ñun benn combat yaakaaruñ ko ci àdduna chaque jour bu ñu xëyee ñu ngi def lu ñu xëy entraîné ji weekend ñu génn rey suñu bopp ci àll bi gis nga sama jigéen ñu baax nii maa ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di leen sant sama waykat yi ñu ngi jógee ba Kaolack kawoon fa lañ jóge man ak ñoom guddeeg bëccëg suba ak ngoon ñooy nekkandoo ci làmb yi waaw ñooy nekkandoo ci làmb di ko ñàkkante xam nañ moo bu baax ñoom benn une semaine bu ñu toogee gisuñu ma dañ may woo laaj ma lan moo la dal sëll lan moo la dal ba tax ñëwoo bëre si xam nañoo man ci compétir laa dëkk ci laay xëy ci laay gont laay jéen combat bi taxul may entraîner de man damay entraîner pour sama saison mën a neex mais pas laay jéen laay jéen maa jóg damay jaar jàll dix-huit dix waaw tey ñu ki ñu yabal du yaafus te du yambar mosoo gis ku waree kër njoogu tiit wala nga gis ku judoo kër njoogu nga xool ko kii boo ko xoolee da ngay naan kii doomu kër njoogu man doomu kër njoogu laa doomu xabaan laa man xabaana ma yaakaar xabaan li ko wër ñoo yaakaar man taseetak ak ñëpp fii champion yi nga fi gis yëpp ay doomu dëkk bi lañ boo gisee ñi teew sama ginaaw nga xam ne champion yi ñu ay duñu topp mbër mu amul fula. mais mais Seul nga jëm ci la 26 sa diggante ki nga xam ni mooy laa jën côté mobilisation est ce que liñ gis fii nii mën nañ ko xaar la 26 fële nga xam ne mooy hippodrome Ndiawma Codou te école de lutte Landing am ci ñaari combat parce que Mama Lamine mi di sa nekk sa wet moom itam da cee war a bëree la 26. loolu loolu dama ciy sant yàlla bu baax parce que Mama Lamine mi daf maa jox boppam. ñuy ànd guddeeg bëccëg suba ak ngoon man ak moom fu ma duggul mu dugg fa buñ demee ba bokk bés lool dama ciy sant yàlla te xam ne dërëm bi génnul gaal gi lamb ji ñun ñoo ko moom isi may dégg maama Lamine day daan jox ma daan incha allah waaw gis ngeen dem ngeen fekk li nga xam ne mooy remise de drapeau bi keroog lan ngay wax parrain bi ak lan ngay wax ki nga ne mooy promoteur bi Baye Samba waaw Baye Samba dama koy sant rek ndax bu ñëpp bëggee taxawal sama combat mu jafe leen moom moo ko taxawal ak di ci sant nag météo bu baax a baax ndax da cee sonn guddeeg bëccëg Fallaay Moussa Poulo maa leen li sant ay grand yi baax lañ dañoo déplacé woo cees ñëw ba fii ndax man amul lu ma leen jaralul comprendre nga ñoom gannaaw yàlla bu sama combat taxawee ñoom ñoo tax ndax ñoom bàyyiwuñ ma benn yoon tamit chaque jour ñu ngi def la tout pour sama combat taxaw biir Thiès kon tey bu demee ba war a ba bëri Thiès dimanche météo moo tax ak yeneen gars yi mu àndal maa leen di sant bu baax di leen gërëm. mais est-ce que doo bàyyi sa rakk wax Mama Lamine après nga ñëw woote Mama Lamine ziar nañ la. ñu ngi lay nga jëm ci bis am solo la 26 sa diggante ak Isma Diarra numéro 2 wàccaa bi foofu ak lan nga ko yóbbante mi ngi lay seetaan. waaw ñu ngi ziar gars yëpp di leen bëggee di bëggee waa Kër Ndiogou gépp di leen ziar di la wax doomu nday sëll bu ndaw la Mama Lamine mooy sëll bu ndaw sëll bu ndaw mooy Mama Lamine. naa fii ñëw di leen bëggee bu baax a baax lan ngay wax Isma jara numéro 2. nee na combat bi amoo ci dara du xeex du bëre. day ñëw daanu incha allah loolu dong la am si làmb ji wax ñëw daanu. Isma day ñëw daanu. day ñëw rek daanu. billaahi maa ko man maa doole wóor na yàlla. damay daan jox sa lu mu ndaw daan incha allah fii la ñuy feetoo victoire bi kër Ndiob bu soobee yàlla. aja sëlu ñu bàyyi nga woote pour le 26. koy def ñun bu ñuy dem incha allah bu jaaree dee dañuy dee parce que ñun xamuñu lu xamuñu defet ñun victoire rek lañ xam. ñun victoire kese moo ñuy dundal làmb ji amuñu si dara lu dul victoire loolu rek moo ñu ñor leneen ñoruñu victoire kese moo ñu ñor te incha allahu rabbi ñu ngi koy ñaan yàlla suñu borom mu may ñu ko waaw. ñu bàyyi nga woote waale benn. waaw di woo ñëp di sant nag ki nga xamante ni bàyyiwuma benn yoon lu ma nekk moo ngi salxaar Zal Xaar Zal ngi koy sant bu baax di ko gërëm moom ci lépp lu ma mën di nekk moo ngi ci. subaak ngoon guddeeg bëccëg day yëge téléphone am di ma woo sëlu loo manqué sëlu soxla sëlu de bu ko neexoon du ko ci fekk. mu ngi may jàppale suba ak ngoon nag guddeeg bëccëg damaa bëgg yéen waa Kër Ndiog ngeen ma Zal Xaar bu baax a baax a baax. Eh, di sant ñëpp di sant samay nijaay ñoom Ndiaga Diop Serigne Diop Bas Gueye maa leen di sant bu baax a baax a baax Abdoulaye Diop Baye Malick Gueye di leen wax ni leen ñu jàpp ci combat bi parce que amuñu si dara lu dul ndam di sant gaa yëpp Baye Sall Diop xam nga ay mundooy ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen yi nekk si man ah Mor Ndiol maa ngi koy sant fils de gaa yëpp bàyyiwuma leen dara dragon jël dem caterpillar bàyyiwuma kenn kenn kenn waa Kasmaas gis naa leen fi ñoom Abdou Djibwali bàyyiwuma kenn maa ngi sant ñëpp waaw di sant sama gaay ay Njonaas xam nga di sant tamit euh, Modou Modou Sim maa ngi koy sant bu baax moom dafa bàyyi liggéeyam gaare otoom joxe ko ndax man ñëw fii lu ma deux semaines mu may jàppale Modou Sim maa ngi koy sant bu baax top 5 moom dama koy bàyyi ak waa dëkk ñu santal ma ko ndax moom lu ma nekk moo ngi ci top 5 aw aw ma man aw ma fayam man Seulleu Bou Ndaw aw ma fayam maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant waa dëkk bi nag waaw waa Kër Nguuda waa Taseet waa Cenaba Jibi Touré Jibi Touré maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm Jibi Touré di sant gaa yëpp ñoom yaa say caw maa ngi leen di sant gis naa leen fii xam nga ñoom Fatou Ba bàyyiwuma kenn di sant ñëpp bàyyiwuma kenn barke Serigne Touba ku déggul sa tur jàppal ne du ci man xelay fatu Lat Mbacke laat Mbacke maa ngi koy sant bu baax Lat Diagne di ko sant bu baax moom it day sonn ci man xam nga Kaolack la jóge bàyyi ay yiteem kii lamb ju ma nekk biir Kaolack li ko wër ak ci senegal fépp fu xanaa kuy xool caméra yi di xool vidéo ah, boo xoolee di nga ci gis kii incha allahu rabbi ngeen ñëw jàpp ci jàppale ma ñu ànd dem esat ngeen yëngal ci ginnaaw ma yëngal ci biir incha allahu rabbi ñu jëli ko ñibbisi waaw di kontaan ci ñëpp képp koo xamante ni teew nga fi tama tax laa jóg maa ngi lay sant bu baax di la gërëm képp koo xam ne tamit bëggoon ngaa ñëw te mënoo ko tamit maa ngi lay sant bu baax a baax a baax waaw Daouda Deef waa Mbengeen bàyyi ma leen waa Mbengeen maa ngi leen sant bu baax dañuy sonn ci man waaw ay Pape Diagne Daouda Seck ah euh, ñoom ñëpp Ablaye ñoom ñëpp maa leen di sant Alaaji Gaye ay Karim sama mafia bi bàyyi ma kenn ñëpp ñëpp képp ku déggul sa tur na nga jàpp ne du ci man waaw maa ngi jégalu bu baax kontaan si ñëpp bég si ñëpp incha allah di sant sama way Sarr awa maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax ñoom peleña wax dëgg fa yàlla jàpp nañ si tambour mosoor bi Babacar maa leen di sant bu baax yéen ñëpp di leen gërëm sant naa ñëpp barke Serigne Touba kontaan ci yéen